wa chloroquine bi comme ni mako wax man chloroquine dafa di produit bo xamante bon puisqu'il y en a qui ont dit que c'est ça peut soigner le coronavirus donc moi c'est que je suis partant mais nañu jël ay cas comme ñom ni ñu def mais pas sax à grande envergure mais un petit un petit nombre essayer ko ak ñom ñom ñu d'accord ñi koy ñi leen di traiter d'accord ñu essayer ko ñom si ça marche nag ñu soog def à grande envergure chloroquine ah waaw xamna ko comme niñ ko nit ñi xamé rek waaw xam naa ni moom ni vaakin bu weex la moom waaye bu fekkee day faj waaw comme sama nijaay nu mu ko waxee rek nañ ko essayer mais pour un petit nombre ñu xool lu muy joxe après ñu door ko élargir parce que tamit ñu ne comme que am nañ fi tamit ay experts yi nekk fii comme euh, ñi ki doon wax euh, keroog fële ci fan am nañ ay experts ci domaine boobu noonu da nga leen bàyyi ñu def seen liggéey rek donc lépp luñ ci am ñu def ko pour un petit nombre bu baaxee rek ñu élargir ko donc ñu def ci nangu quoi sama xalaat. waaw donc xam nga mbir yi moom dañuy seet xam nga loo seet loo gisagul ku gisagul day làmbatu donc fu ñu toll ni nak li ci am ba am comme que amaguñ ci xam-xam bu wóor nañu jéem rek yàlla baax na nañu yàlla fajal li mu teel fee jóge ndaxte du question feebar bi am na mais lu ci bëri mi ngi yàqu yàlla nañ yàlla taxaw ba fi yem ah, bien sûr comme que am na ñi ñi ciy wax kañ expert wax ne am nañ yaakaar ni dina baax kon kañ nañ leen bàyyi ñoom ñi nga xamante ne c'est leur domaine xam nga ñoom ñu gën ci xuus buñ ci yàlla àndee incha allah mu dimbali ñu ci.